asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lundi mille décembre 2019 ñu ñëw ak yéen ci yëglikaay yi moo xam sunu làmb la yëglikaay bi di l'observateur record la tribune wala Leewtoo TV fu nekk rek ay xibaar xëy na fa tey bu dee yëglikaay bi di sunu làmb la moom Ama Baldé la xëy tey wane ko moo ki nga xam ne moo di Modou Lo ñoom ñaar nag mu mel ni ki yëglikaay bi moom la muy xamle daal nee na presque day maanaam daal lig Nicolas moom combat bi nga xam ne moom la ñu bëggoon presque jox na leen ko tey ci altine jii daal sunu làmb nee na ci la ñuy finaliser nag mbir ya mu mel ni ki nag jamono jooja moom Modou moom la mu xamle daal dafa mel ni yëglikaay bi moom nee na 150 millions ya moom mu moom daal nee na yàgg na caa déggoo ak ki nga xam ne moo di lig Nicolas wala boog yàgg nañu déggoo ci ngir mu bëreel ko ama ma doon bañ sa 80 moom yëglikaay bi xamal nañu ne day mujj a nangu mooy quatre-vingt-dix millions maanaam juróom-ñeent fukki millions daal la ñu ko mujje jox mu mel ni ki kon sunu làmb xëy wax ñu loolu xamal ñu ne daal li leer ba leer contrat ba moom tey ji lañ koy signé ci kanamu avocat bi nga xam ne mooy bu lig Nicolas loolu yëglikaay bi di sunu làmb moo xëy tey wax ñu ko mu mel ni ki daal Modou moom la mu xamle leen la nana moom daal kàddoom joxe woon na ko bu yàgg yàgg yàgg xanaa kay leneen la ñuy wax waaye moom mbir yooyu moom paase woon na ko keneen koo xam ne nii moom ku mu jëflanteel la bëgg muy Balla Gaye numéro 2 yëglikaay bi xëy na ci wan ñu ko Balla nag mu mel ni ki daal la mu xamle leer na nee na képp ku ci mën a ñëw daal képp ku ñëw da koy defal bagaas maanaam daal moom ku ko ci jegeñ mu defal la bagage loolu muy waxi ki nga xam ne nii moom moo di Balla gay numéro 2 keneen koo xam ne nii moom kam ko séqaloon defal na ko bagaas muy rëg-rëg digganteem ak Sofiane moom loo ci mën a dégg les yaa nga ca Leewtoo TV record ñëw na ci observateur ñëw na ci ak la tribune mu mel ni ki daal moom Sofiane day bu yëgoon daal xam naa ne du dugg ci bagage yi rëg-rëg ndax nag daal wan na ko lu mel ni midi wala mu wan ko boog biddiw bëccëg yëglikaay yépp xëy tey ñëw wax ñu ko mu mel ni ki rëg-rëg génnam bu njëkk ci MMA bi daal réussir na ko réussir boo xam ne bu leera leera leer la ba mu ca paree nag la mu jublu ne na lenn la daal digganteem ak Bombardier moom daal xam ne na ne bés bu at bi suuf seen diggante ne na leer ba leer Bombardier bu keroo gën a taxaw ndax man mii maa koy diriger lu mooy ay waxam moom rëg-rëg keneen koo xam ne tamit MMA ba intéressé na ko mooy Lac de Guiers numéro 2 mu mel ni kii nag moom daal la mu fas yéene daal moo di maanaam dugg ci ba tey mu nga ca record di wax moom Lac de Guiers numéro 2 ci mbirum VIP ak combat yi nga xam ne nii daal maanaam amaguñ ko wala boog tëna ngir ñu am ko weekend bi itam wexoon na xat waaye safoon na sàpp itam ci ay làmb bu ñu demee fa nga xam ne moo di ca Leewtoo TV mu mel ni kii nag Jackson moom jàpp na waa fas dugal leen ci gute goo xam ne ni daal génn guñ ca bu doon tañ dañ caa nekk daal gën na leen caa puus ndax nag Pape Ndoye la jàpp daan ko daan bu méttee métti daan ba sax la ca gën a métti mooy duma ya nga xam ne nii duma na ko yëglikaay yëpp xëy nañ tey ñëw ci Pape Ndoye mu Jackson dóor a dóor ba mu tëddal li nga xam ne nii moom moo di boppam yëglikaay bi ñoo xëy ñëw tey dina ko wax waaye ca la nga xam ne nii daal moo di ca dimanche ja itam ki nga xam ne nii day moo di booy bool numéro 2 moom itam war na saal bambay ne ko man xale laa bu ama am talent ci combat boo xam ne seqoon nañ ko ki nga xam ne nii daal moom moo di ki nga xam ne moo di booy bool daan ca saal bambay waaye la ñëpp doon xaar tamit mu amee woon ca Gàmbi waroon dox ci diggante wulli ak ki nga xam ne nii moo di liiru jaan bàyyi ma ñoon xoyantaan daa mel ni daal nit ñi lañ ca bëggoon gisuñu ko ca wala boog nañ ko doon xaare mbir ya mujjul demee noona ci déception wala échec ci wàllum combat yi ñu waroon a bëree bu dee diggante wul ak liiru la moom li leer ba leer daal liiru moom ak lees man a wax moom la ñu mujj a yëkkati loxoom ne ko yaa gañe ki nga xam ne moo di wulli muy lu doy a doy waar leneen la gën a doy waar nag muy diggante bàyyi ma ñoon ak xoyantaan arbitre war a soufflé ñu war a bëree ñu ne bàyyi ma ñoon dagal say we mu ne amul ay we coow la jàpp aaba daal foofu la mujje moom daal di fa jaare mujj ñu ko bëree daggal say we du ma dagg samay we mu mel ni kii daal promoteur ba moom loo ci mën a dégg muy jamay jamaykeen la ko waroon def na ko ndax nag fexe na ba estadu bakaaw ba fees dell mbëree ñëw ñoom boon loog papa sow kenn desul moom moo ngoom tëgg ki nga xam ne moo di maye ndeb way amateur yi bëgg waaye la naqari seen xol daal mooy komba ba nga xam ne mujj ñu gis muy combat faar ba doxoon ci diggante Baye Mandione ak ka nga xam ne moo di xoyantaan leneen loo xam ne tamit dañ cay wax muy combat ay xale yu taxaw diggante laay goote ak daa ne nañ combat ba taxaw na premier mars la ñu koy bëre fa nga xam ne mooy ca Thiès lambi simple tamit amoon na ci weekend bi mu mel ni ki nag ki nga xam ne nii daal moo di général Malick jàppal fi nga xam ne nii day moo di ca fa daan moo di caaka fay caaka fay mooma ko daan daal moo ko daan jël lañ fa tegoon waaye ci jamono jooju tamit am na yeneen dëkk yoo xam ne général Malick jël na fa ndam ci samedi ji waaye Adrien moom dañ ko faa daan waaye ci demi-finale ne nañ moom ki nga xam ne moo di général Malick ka mu ca daan moo di ki nga xam ne moo di gaskel jàmme mu mel ni ki tamit lambi simple ji kon yëngu woon na bu baax a baax waaye man moom li ma naqari te defe naa moo naqari ñëpp mooy la am fa nga xam ne nii moo di ca Gambia arbitre bi war a souffler ngeen war a bëre ñu naan gauche droite daggi we du ma dagg ay we ba komba ba mujj fa tàbbi géej te borom combat ba lu ne mu daj ko ci bagante senegal ak Gambie génney million fay leen ko mu mel ni ki li ñu gis démb moom yaakaar naa ne du luy taaral làmb te itam nag baaxul ci imaasul li nga xam ne mooy lit avec frappe dafa mel ni daal kon jamay jamaïcain yow jàppal ne sa jaan wàcc na lu waaye mën a wax moom la la waroon def nga ko relever nga défi ba ku ca des nag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 waaw loolu day bu amee dañ naan alhamdulilah rek sant yàlla lañ ciy mën a def parce que li tax mooy combat la boo xam ne nii nit ñaa ngi koy xaar boobu ba tey ay weer a ngi ñu ci xëy di ci wax chaque jour journaux bind ci chaque jour ci internet wax ci chaque jour rajo wala télé wax ci wala amateur wax ci mu mel ni kon lu intéressé sénégalais yi la rawatina monde de la lutte kon defe naa tey buñ ne ay quelques réglages ci des wala presque taxaw na ak Luc Nicolaï du ñu mën a lu dul alhamdulilah ñaanal Luc Nicolaï mi si nekkoon boobu ba tamit na ko taxawal te ko taxawal tamit li tax mu taxawal ko bu ci duggee ci bismillah rahmaan rahim yàlla na ci génn alhamdulilah rabbil alamin maanaam jëli ci réussite totale quoi loolu lañ koy ñaanal bu baax a baax Babacar journal bi tamit mi ngi dalal ki nga xam ne mooy baala Gaye Balla Gaye na ku ñëw rek dina la defara bagage waaw Balla loolu la xëy wax tey ku ñëw dina la defal bagage ah kon ñu war a ñëw na ñu ñëw waaw bu fekkee ne nag fi mu nekk nii moom ñu war a ñëw la pour Balla moom yaakaar naa ne ay kombaam digganteem ak Tapha la war a mën a doon digganteem ak Bombardier wala digganteem ak Gris Bordeaux waaw loolu moom ay combat ndax diggante ma Eumeu Sène la ci Eumeu Sène waxoon moo ñu xaw a jaaxal waaye bu ñu demee si cadre sport moom ba tey combat bu war a mën a nekk la diggante mag Boy Niang tamit ñu ngi koy wax combat bu war a mën a nekk la ci kaw Balla accepté ko. Babacar suñu jógee si bëre door dem nag fi nga xam ne mooy MMA ndax MMA samedi bi amoon fee nga xam ne mooy musée de la civilisation africaine journaux yëpp muy tribune di record ak li nga xam ni mooy euh, Leewtoo TV ak observateur ñoom ñëpp ñëw nañu si victoire bi nga xam ni moom la Reug Reug am si kaw Sofiane. waa Reug Reug ñu koy féliciter encore une fois parce que kera bi mu génnee defe naa ne drapeau Sénégal la gàddu yorul beneen drapeau man maa nga fa waaye nag lu may nekk nekk journaliste wala reporter moom laa doon ñaanal ndam parce que suñu drapeau réew la gàddu di défendre couleur Sénégal defe naa itam wane na boppam waa Reug Reug nag yaakaar naa ne si tey si carrière bi mu nekk toll nii ak jamono ji mu nekk nii ku jar a bàyyi xel la ci sport yi muy def moo xam MMA bi la moo xam làmb ji la li mu wane kere si MMA bi moom defe naa ne lu dal la te wane na que ni moom bu gënee continuer liggéey yaakaar naa dina gën a def ay performance yu nganda nganda ngan ñu koy féliciter di féliciter waa Caaro yëpp mais di féliciter tamit doomu Sénégal yi rawatina ñi nga xam ne ni ñoom ñooy ñoom lay àndal ñoom Daawur ñoom euh, Cheikh ñoom Birane ak ñoom juma képp ki nga xam ne daal nitam nga ñu ngi lay féliciter parce que tamit wane na keroog daal que ni moom sportif la te sérieux na ci li muy def su te loolu dafa am am solo am na leen loo xam ne sax maa ngi nuyu ku mel ni Beuz leeral na ma ko ci que ni moom combat bi mu jongante moo ëpp niveau bi Bombardier jongante woon wala bi Siteu jongante woon parce que MMA par niveau niveau niveau la quoi yaa ngi ñu koy ñaanal mu dem ba atteindre niveau yi xam ne nii muy niveau bu gën a kawe bi ci MMA mook mbër yi xam ne tey dugg nañ ci fas kuy ne def ñu jógee nag euh, si MMA boobu nga xam ne journaux yëpp tey moom la ñuy xëyee ñu dem nag fi nga xam ne mooy record record dafa xëy dalal ki nga xam ne mooy la de Guiers Lac mi ngi expliqué ne moom dong mooy VIP bi nga xam ne mosul bëree combat royal. waaw kon day xanaa daa bëgg bëri combat royal waaye nag bu fekkente ne euh, combat bi ñuy wax ne taxaw na wala bu dee dëgg la muy ama ak muudu moom daa mel ni dina xaarat ba ca kanam ak kanam ndax muudu yor couronne ba te bu jëmee ci ama moom kon moom bu yóbbu wutiwaat beneen komba waaw lañ koy wax nag mooy bu mu fa nekk di xaar combat royal na bëree affaire bi time is money la digganteem ak Gris Bordeaux lamb la moom Lac de Guiers dëgg digganteem ak Tapha Tine revanche lamb la lamb day am revanche yaa ngi dégg parce que yaakaar naa mook Bombardier du ñu bëri kon nag loolu moo fi nekk comme ay combat waaye nag combat royal daal bu mu ko teree di bëri l'essentiel que del ami combat di bëri moo gën a wóor Babacar nag suñ jegee fi nga xam ni mooy euh, fi nga xam ni mooy record nañu dem fii ci Leewtoo TV Leewtoo TV foofu daal li ñuy xamal na combat bu neex bu amoon samedi diggante Pape Ndoye ak Jackson mun nañu wax daal combat bu metti woon na si Fassois bi ki nga xam ni mooy rakk Lac Lac Rose. metti na trop kere ci moom ndax Pape Ndoye ku ko xam xam ko ci njàmbaar ak jom ak bëgg bëri ak mën a bëri waaye nag kere moom dafa dafa daj ci loo xam ne nii moom ah, di ko dafa daj lu ko gën a metti daj lu ko gën a sës muy Jackson te dama ko waxoon dama koy continuer di waxaat dafa am nit ñoo xam ne nii wala ay mbër yoo xam ne nii bu ñu sàmmee seen bopp dañuy bokk ci ëllëg ñu téye làmp Jackson dama waxoon ne daf ma daf ma dama gis ci moom siru sampion ba pare gis ci moom Modou Lô te loolu lay wane bariwul yi wax calme na doo ko gis muy génn fu bari ci image wala fenn te saa yu ñëwee stade def na loolu tax nit ñi jàpp seen gémmiñ bëri ki démb ci mujj xalaatoon nañ xëy na mu daan Pape Ndoye mi am na ñoo ne boo leen waxoon ne ci xeex la koy daane duñ ko d'accord waaye boo xoolee da ko njëkk a attaqué xeex ak moom Pape Ndoye daw génn ñu dellusiwaat mu delloowaat ko fa xeex ak moom bu dóor ko ba mu daanul boppam bu ma leen xoolee nag ñoom ñaar ci aspect sportif li ma xam mooy Jackson moo gën a liggéey combat bi sportivement ci wàllum entraînement li mu liggéey man jàpp na ne Pape Ndoye liggéeyu parce que Pape Ndoye xale la par rapport ak masse bi mu yor nii dama yaakaar ni du masse bi mu war a am si làmb kon war na gën a liggéeyaat boppam ñi koy encadré war nañ ko gën a liggéeyaat Jackson nag mu ngi ci aw yoon li ma koy wax bu mu naagu daagu bu mu naagu di moins parce que olof a ko wax ku naagu daagu te ku daagu ñu raw la aw yoon la jël ñu koy nuyu di nuyu ay encadreur am ñoom Pape Fall ak waa Guédiawaye mboolu yëpp xale boo xam ne daal ku jara jara bàyyi xel la moom Jackson moomu vraiment daal kera li mu wane moom wane na ne moom ah mbër la de te ay moromam itam wane na ne moom ñoom mën nañoo defante bu baax a baax ñu ngi koy wax tamit sport noonu la dem defaru jiwaat Babacar Ndas tamit si Leewtoo TV ak euh, Leewtoo point net foofu la ñuy xamal ki nga xam ne mooy euh, général Malika ginnaaw bu mu daanee samedi bi fee nga xam ni mooy Diofior ci kaw Arobas dimanche dafa ñëw Adrien ñu daan ko te Thiaka Faye moo ko daan Babacar. waaw loolu moom mooy li lambi simple ji kon loolu c'est normal comme da ngaa jël samedi finaal waat dimanche ñu daan la ah c'est normal nag c'est très normal parce que lamb simple moom li may wax rek dañuy daanante da ngay jël fii jóge fa ñëw fee nga daanoon fee nga fekk ko fee mu daan la final wala mu daan la sax premier tour. kon loolu mooy simple di féliciter Thiaka Faye mi jël Adrien di féliciter tamit général mi nga xam ne moo di ko encourager mi ñàkk mais di ko féliciter moom général tamit moom mi gagné fa nga xam ne nii mooy dëkk bu nu mu tuddati Diofior loolu mooy làmb Babacar lu jeexee nag ak euh, combat bi nga xam ni neexoon na trop weekend bi ni dimanche bi fee ci si Gambie sunu laam noonu koy xamal combat ba daal ñaari combat yu neex moo amoon si diggante euh, ki nga xam ni mooy wuli ak euh, liiru jaan suñ jógee foofu nag combat bu mag bi mooy combat royal bi comme diggante xoyantaan ak ki nga xam ni mooy Baye Mañoon arbitre bi daal lu ñu mujjee def jox nañu ki nga xam ni mooy xoyantaan victoire mais nag bëre woon na coow trop Babacar waaw ñun moom balaa ñuy yegg foofu a dañuy balu àq peuple gambien bi wala peuple sénégambien bi rawatina ñi nga xam dañ doon xaar Leewtoo TV ci làmb jooju ci gisuñu ko ñu ngi leen di balu àq bu baax a baax leen xamal ne rek du si coobare di ci jéglu bu baax a baax parce que comme li wax rek olof a ko wax ku dee ci marché yaa tàgge sa bopp te ñun ñooy def làmb 100 pour cent kon defe naa mu xewee rek war nañ a dem mais ñu ngi jéglu bu baax a baax ñun nag euh, moom ki ma koy jox mooy jamaïcain moom relevé na defeem li ko waroon def liiru jaan ak wulli nag gis nañ dafa am ak arbitre la ñu def ne nañ liiru moo gañe ah loolu ñun amuñu luñ cay wax kon dañuy féliciter liiru encourager wulli xoyantaan ak Baye Mandione nag la ko tas pour man war a mën a tas combat ay wey yu ñu dagg yu ñu daggul yaakaar na waru ko mën a tas te gëm ne euh, jamaïcain xale la dañ ko war a jàppale encore une fois parce que am na yoon bu ko jeune amee ambition di ko def pousser ko moo gën di ko yàqal mais am na yoo xam ni bëgg yàqal nit ki dafa am ñoo xam ne nag maanaam ñoo raw golo ci toolu xaal yàq rek la ñuy def loo mën a defar bu ñu xamee ne lii dina réussir dana am ndam dañ fexe fexe ba yàq ko waaye nag dafa am ku nekk ci kaw tiim ñu te gëmul nelawul te lépp mu ngi koy gis boo tëjoo wax mu ngi lay gis nga ne ci biti wax mu ngi lay gis ngay nelaw mu ngi lay gis parce que mu ngi la tayal ñaari malaaka kon yaakaar naa ne la ma koy wax moom jamaykee gën a di ko ñaanal combat bi mu tëgg fii Sénégal muy diggante Franc ak mooy Bébé yàlla na ko ci yàlla defal ndam parce que maag moom li ma wax dem si reportage bi rek jamaykee micro boolewuñu mu nekk promoteur boolewuñu ba ñu àndee dafa yàgg sama rakk la sama xaral sama lépp la maa ko ñaanal jàmm di ko wax ne daal yàlla fekk na lépp daanaka nag si kàddu yoon leen tàggoon jox dig daje suba incha allah mais balaa boobu ma nuyu sama yaay mère Sow doom Mouhamed Diouf di nuyu Astan mi déjà Brahma chéri Khadija Diallo depuis Italie di nuyu Asek chéri Khoudia Seck ki nga xam ni mooy mbay Sey depuis Ouest Foire di nuyu ki nga xam ni mooy samay doom Mam Diara Penda bébé Fallou bébé ya ak ki nga xam ni mooy Abdou Gueye euh, Pape Sita Baye Fallou jàmbagan depuis États-Unis aussi maa nuyu di ko jox wàcc waayam di nuyu ki nga xam ni mooy Aïcha Faye Euh, ki xam ne aussi mooy Aïda Diouf Babacar. ziar nañ ñëpp ñaanal ñëpp jàmm balu ñëpp ak ngañ sow kenn tukki ci États-Unis maa ngi koy nuyu xam nga di nuyu ñoom Abdoulaye Mbaye Youssou Ndoye l'international sama rakk maa ngi nuyu ak Saliou Ciss képp ki nga xam ne yaa ngi suivre Leewtoo TV rek foo mën a ne maa ngi lay nuyu di la ziar ñoom tuuti yaay Sarr Khadiros Ndiaye ma Fall ñoom ñu ngi à l'étranger tamit di leen ñaanal jàmm bu baax a baax ñoom da baax Norvège Mamadou Diao Ba Espagne moom tam maa ngi nuyu di ñaanal ñëpp jàmm daal xam nga maam Modou Gueye taalibu Serigne Mbaye Sy Abdou képp koo xam ne daal yaa ngi suivre Leewtoo TV à travers ah sa YouTube sa téléphone ñu ngi lay ñaanal jàmm di ko sàkku ci yow mais di nuyu tamit ki nga xam ne mooy Mouhamed John King faat Place maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax wala King Fat Hôtel bokk di moins waaw maa ngi koy nuyu ñaanal ñëpp jàmm daal. bu